Aïcha tubaarkàlla sante len gërëm len bu baax a baax yéen ñi safo El Media Médias man Sista Eva nag maa ñëwaat ci seen émission bu mag bi nga xamantene ne moom la ñuy wax euh, découverte tey découverte nak dañu am ndaanaan bu mag boo xamantene ne macha allah yaakaar naa kenn dootu ko présenté fii ci El Media Médias muy la puissance ñu gën koo xam ci série bi nga xamantene ne mooy mooy Toosa Noon série bi lëmbee jamono euh, Sista Z maa ngi laa nuyu. waa awa fay naa la awa la Tigresse nuyu naa la bu baax a baax di nuyu waa El bu baax a baax di leen ziare. ok sister Zeyna sama première question kan mooy Zeyna la puissance. waaw Zeyna la puissance moom euh, Zeyna ba laa tudd sant ba mais ñu gën ma xam sama turu artiste ñu gën ma xam Zeyna la puissance. ok bëgg naa Zeyna wax ma jaar-jaaram ba xam jàng na wala moom lan lay def def na formation wala lan la def. waaw def naa formation. def naa formation. Euh, jaar naa raay bi FM def naa fa li nga xam ne moo nekk benn formation trois mois après si laa pare def li may def ba pare am sama diplôme ñëw mais avant may dem maa ngi woon biir El Vision Média fa laa nekkoon. ok bëgg naa xam tamit euh, Zeyna la puissance lan mooy sport préféré. waaw sama sport préféré moom euh, làmb la man damaa bëgg làmb. Mm-hmm. lamb mooy sa sport préféré xam mm-hmm. naa ne duma la laaj kan mooy sa mbër parce que <laughs> tamit amul droit di uh-huh. euh, naa xam tamit ban togg moo la gën a neex sa plat préféré waaw man togg bu ma gën a neex mooy ceebu kecax moo ma gën a neex bu am comme fumé ay yoxoos ak tuufa neex na ma torop kenn bañ ko mm-hmm. bëgg naa tamit euh, sister Zeyna la puissance nga wax ma ban année nga dugg ci théâtre man nag bi ma duggee ci théâtre nag yàgg na yàggul ndax dama nekkoon di def li nga xam ne moo nekk répétition mais yàlla dafa def antuwul fi ma bëggoon egg eggu fa après si laa mujjee bàyyi mais temps bi mu ci duggaatee yàggul. ok kon instant maa ngi ci El Hadj ci moom laa nekk. ok euh, bëgg nga wax ma nan def ba dugg biir El Vision noo def ba intégré biir El Vision moom sama benn góor moo ma booleek El Hadj daal di may ñëw wax pour ma defal ko émission ndax ma nekkul euh, li nga xam ne moom moo nekk théâtre bi rek moom laa njëkk a def ma ñëw di def ay reportage après si laa pare dem def sama formation hélas yóbbu ma raay bi FM may def sama formation ba yàlla def tey ma daal di dugg ci affaire théâtre bi yàgg naa ko woon bëgg mais dama dem ba xam ne fii euh, dama jàpp ne sama xel dootul demati daal xaar ma jéem a làmb feneen. parce uh-huh. que théâtre bi ngay def muy eh, seen série bi nga xamante ne mooy mooy toosanoo gis nañ ne série bi macha allah Sénégal bëgg nañ ko Europe aussi tamit la même chose bëgg naa nga wax ma ci ba xam yow am nga idole ci ci théâtre bi ba tax mu poussé la nga dem defi ji loolu kan mooy sa référence ci milieu showbiz bi. man moom milieu showbiz bi moom man dama ko yàgg bëgg. man ñëpp sama idole lañ man su ma la gisee ngay def lu neex rek ba pare nga simple si sa bopp rek man may neex. Uh-huh. waaw bëgg naa tamit Sister Zeyna la puissance parce que booy seetaan commentaire yi ñu bari dañ naan euh, puissance daf ma neex dama ko nopp dama ko lii ma bëgg xam ba xam Zeyna am na ko fi nekk mu ngi ci relation bu wala ba hmm. parce que ñooñu tamit ñoom ñi ngi jàpp confiance ne ñoom peut-être un jour ñoom mën nañ tomber ci la puissance <laughs> waaw la euh, puissance am na jëkkër ndax sama jëkkër moom laa bokkal liggéey bi di liggéeyandoog moom ma koy nuyuwaale un passage muy élage loo loo ndaam sër <laughs> si moom laa nekk daal ndax commentaire yi pañ sax damay dégg ñu naan puissance dama koonam affaire yooyu noonu mais anyway daal loolu xam nga du dara surtout nga nekk artiste sa jëkkër nekk artiste loolu nekk loo xam ne lu garaaw la loolu dara nekk ci Euh, ñu gis ne tamit euh, nga nekk ci milieu showbiz euh, xam ne nekk dafa metti aar dafa metti macha allah ba ba pare nga bëgg ko boole ak sa ménage loolu est la benn complication ci sa milieu kër yi nga xam ne dañuy safoo El Vision Médias parce que ñu xam. non non awalaa loolu moom indilu benn problème vraiment si sama kër bi nga xam ne fa laay sëy ndax mun naa ne samay wuju peccor ga yi nga xam ne ñoom laa fekk fii. rus naa sax di taxaw ne samay wujju peccor ga lañ damay wax samay samay mag ñu laa fi fekk samay rakk laa fi fekk vraiment euh, amul benn kanam boo xam ne euh, war nañ ma ko may profito waale di nuyu waale Maguette Diaw bu baax a baax Euh, di nuyuwaale ngóone moom tamit kenn du moom mu nekk mag ji nga xam ne dafa jël ginnaawam rek daa ci sotti ndox bu sedd xale yépp ñëw topp ci ginnaawam sama yaay tamit aussi euh, euh, yàqu ci dara daal bi ma ñëwee ci kër gi ba tey ñoom amul benn kanam boo xam ne su ma waree liggéey dinañ ma ci sonal wala di ma buntu xatal vraiment. génnaat foofu la puissance euh, xam nga dëgg la awa xam nga nit kuy dund rek euh, munoo ne dangay dund te yow doo am loo xam ne metti na la nit ku la ko wax rek xamal ne mu ngi foobee xelam ndax fii àdduna bi naqar moo fi am ak mbég mom mo am ci ci ci aduna bi ndax yalla bu la bëgg rek mom mo lay tek ay nattu ndax yalla bo toge tegu ay nattu rek war nga xolaat sa bop bu baaxa baax wa man amna metti bu baax si sama aduna ba nga xamne suma toge dama koy xalaat muy sama nijaay bi nga xamne euh, euh, bima bima bima. bima bima avant may juddu la demone voyage léegi bu mu ñëwee fekk yaayam gañu mu ñibisi léegi bu mu fekk ma ngi nekk xalé di am ay un an yooyu bu mu jaalee ba pare mu ñibbisi léegi bu mu demee ba tey ba ni may màggee kenn gisu ko sama yaay doon ko jàmbat doon ko wër ñu def lu ne ci àdduna mais mënuñoo fexe ba gis ko loolu bokk na li nga xam ne lu ma metti la daal ci sama àdduna loo xam ne mënuma ko fàtte ndax xam nga nit nga bokk ak moom gisoo ko xamoo ko dafa nekk loo xam ne lu. ki may tagga gën

sujaamni geeru geen ñaange gëm leen dina baaxe ki may tagga gën ñaam lay lay la laa gëm leen dina baaxe lay lay la laa sama géer

suñu chance gis ne ci salle bi euh, bëgg naa tuuti loo xamante ne nga ko ci sa àdduna muy mbégte boo xamante dafa neex nga xamante saa su nekk dangay ñaan suñu borom dundaat lu mel noonu. instant bi moom li ma mën a wax li ma dund loo xam ne lu ma neex la damay sant yàlla bu baax a baax. waaw damay sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax bi ma yàlla boole góor gi nga xam ne góor bu baax la loolu tam nekk na loo xam ne lu ma gën a neex sama àdduna la vraiment yàlla boole ma koo xam ne tamit ma ndey muy sama goro bu baax a baax ndax tey sama yaay mënoon na dee ma ñëw ci kër gi mu mu gën a métti ci man su boobaa damay xam ne mbiru yàlla la yàlla moo moo moo ma nattu loolu noonu sama xol dafa fees daal waaw Kima maitagara unyabe yenizope gamlemnina bara voilà parti de l'IS ça va ci lone lepp ça va allez euh, mu malade baa ngi nii hein depuis ce matin mu ngi tëdd voilà ah dañ koy yàq xool soo ba voilà day liggéey journaliste wala communicateur grade si làmb préparé concentré wul neex na dafa nekk loo xam ne dañuy ñëw rek ñu ne ñu def leen nii ñu def lu ñuy def rek daa dem suñu yoon ndax dafa nekk loo xam ne benn gëm-gëm la rek bu nekk suñun moo tax dañuy ñëw élage na ñu def leen lii ñu daal koy def daal dem suñu yoon waa léegi nekk bi ñu nekk moom mu nekk quatre personnes ak ji góor ñi mu nekk deux personnes muy six personnes loolu dafa nekk loo xam ne dañoo déggoo rek ba tey ba ay nit ñëw El Vision Médias ndax dafa nekk loo xam ne vision la ñëpp lañ ci yaataan mais boo ñëwee euh, daal di nduroog ñi nga xam méngoog ñi nga xam ne ñoom nga fekk ci biir kër gi su boobaa dafay neex mais boo ñëwee méngoo ak ñi nga xam ne ñoom nga fekk ci kër gi dafay daal di metti bu baax a baax moo tax it boobu ba tey da ngeen di gis rek ñun rek ñun ñooy dem ma gis ne série mooy mooy toosa noonu macha allah eh, lëmbe na jamono ñu daw ci El Vision Média dama gis eh, booy seetaan commentaire yi bu ñu dugalee seen kii dama gis ne am na ci la puissance di wax naan dafa simple ak team nga xamante booy seetaan commentaire yi lan ngay wax sa fan si nga xamante ak sa team bi nga xam ne ñoom ñu ci eh, seen kii bi man moom damay wax rek sama fans yi man man dama naan man ñoom dama leen di delloo fans gi. ndax ma dama yàkkamti hélas eh, dugal dara ba ma daw xool dem xooli commentaire yi lu ñu wax yooyu ndax mënuma toog fii sax di lim turi naan diw ak diw ndax ku lim juum ndax ñoom ñëpp laa xam seen tur yi ni dangay wax dara sax ma ne diw tey dugal na nii wax na nii léeg-léeg léeg-léeg man eh, dama bëgg ñu xam ne lu ñuy bëggee la puissance la puissance tamit noonu la leen ni bëggee bu baax a baax di leen sant di leen këram ndax nga dugal dara nit mun see concentré bu mën a xam histoire bi fan la jógee dafa nekk loo xam ne yombul ay nit yu baax a baax a baax lañ surtout ñi nga xam ne dañ lay woo fii ba Europe nit ñi di la woo naa la jàppal te wa bàyyi. Uh-huh. Euh, ba xam euh, yow dangay toog di ko dund loo xam ne métti na ma. ndax man artiste dama jàpp ne euh, euh, man dama si jëlee li nga xam ne dama ci yeewu ëllëg ndax paysa ñu wax la dara ma ne ah tey kat commentaire yi wax nañ li la puissance bu ëllëgee kat du ma ci dem du ma ko defaat man damay bëgg commentaire yi di gën a commentaire pour muy mën a xam samay fautes di mën a xam fu may teg sama tànk bu baax a baax la puissance bëgg naa tamit euh, dikkal ma tuuti parce que série bii nii nooy mooy toosoon yow gis nañ ne biir El nga nekk en tant que ak animatrice di def ay émission yu am solo macha allah. parfois nga incarné benn rôle ci benn kii ñu jàpp nga mel fekk tel n'est pas le xam nga dafa affaire bi dafa nekk loo xam ne benn yére booy sol la rek mhm. soo paree da koy summi teg ko nee mhm. puissance buy ziyee puissance la Zeyna bi nekk ci biir këram di sëy Zeyna bi nekk ci biir këram du sëy bokkut ak yére aar buñ koy solal. aha damay bëgg nit ñi parfois ñi xam loolu commentaire yi nag man comme li ma la wax léegi rek amul dara lu ma ciy metti parfois dama nekk sama jëkkër mais dañuy wax benn ton boo xam ne barke Serigne Saalu yàlla rek moo ma tim ak weeru koor gi ma woor ne sama jëkkër day reetaan sax danaan ñi dama leen fekk fi ñu nekk songu leen xeex ak ñoom affaire yooyu noonu kon loolu may wane ne ñun jàppewuñ ko dara ndax ñoom seen commentaire yi moo ñuy dimbali bu baax a baax a la puissance bëgg naa nga boo xamante ne chaque jour da ngay bëgg di ko seetaan tout temps. moom est-ce que si moom vraiment euh, dama naan yëpp man yëpp moo ma neex ndax chaque jour rek bu ñëw rek dama naan bii moo dàq bii moo dàq mais man jom ax mama dañ may faj. dañuy naan la xawla wala xawata illa waaye lu leen dal bind livre bi moom génnee ngeen ko ci biti di ko bindee fii lii nag dafa aram ci weeru koor gi. dañ waxante dëgg ngeen di mel ni ñaari nag yi ñuul lii lan la. yow boo amul koo bës nga xëj. jom euh, mama ak Amer Diop dañ may dajji man moom mënuma leen muñ ñoom ñaar tamit euh, est-ce bu may indi di ko indiwaat mooy jom mooy mama fu mu génnee daal di dugg ci kër gi ñëw fekk ñu daal di luwee néegam bi mu ñëw rek tijji rek daal na ko. yow doomu nga wala lan nga bon loolu foofu moom mënumaa téye sama bopp foofu moom est-ce que boobu moom. dama dama koy teg di ko tegaat rek ndax mama mama moom xam nga moom dafa laqale moom. na eh, ma kii nga la. nga wala lan nga yow yow assassin nga perfide nga ah. <laughs> bëgg naa tamit nga wax ma kan moo ci sa sa artiste ci eh, sketch bi nga xam ne nooy moytoo sa moom nga xamante ne doo ko mën a daal. man moom ñoom ñëpp samay artiste lañ ndax waa Elvision Média dafa am benn. affaire boo xam ne dafa nekk ci ñoom ñii nekk ci affaire théâtre bi ndax euh, tey nga wax kii euh, neex na ma bu subaa keneen ki buñ ko joxee rôle bi tamit mu gën a garaaw kale kon ñoom ñëpp ñoom ñoo garaaw mention spéciale waa euh, waa waa waa nooy mooy ñoom ñëpp macha allah. Mhm. ok dañ leen daal bàyyi rek nga nuyonteeg say fans tamit ñi nga xam ne dañ lay bëggee di la woo nga daal di ñoom saafonteeg ñoom ah, waaw macha allah di di di nuyu ma eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commentaire yi ku commentaire wu ku commenté ku commentaire kuy seetaan ki nga xam ne mu ngi suivre ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare bu baax a baax di nuyu sama fans yi tam nga xam ne ñoom ñoo ngi Europe. di nuyu sama mag ju baax jooju muy meram kan di ko wax ne yàlla jamu la yàlla defal jàmm di sant jëkkëram bu baax a baax muy Mohamed di ko wax kontaan naa gis naa tànk yi nga xam ne taxaw na bu baax baax di nuyu sama njëkke tamit di nuyu sama njëkke yépp kulim daal juum sama njëkke yi tamit ñoom ba tey yàquñu ko boobu ba tey ñoo ngi may conseillé di ma wax lu li nga xam ne lu rafet la ñoom ñëpp ñoom ndey gay ñoom ñëpp daal ku ku daal juum ñoom ndey loo ñoom màgget ñoom faama vraiment ku lim daal jum ñoom ñëpp maa ngi leen remercier nuyu papa tafa euh, di nuyu tamit séeram bobu nga xam mom may penda dañuy yëkëti sen téléphone di ma wo et tout di ma wax defal ni defal neex di nuyu tamit binta bi nga xam moy séri tons mo ngi euh, pikine moom tamit damay woo di ma euh, conseiller sama bir néegu sey ni ngay def ni ngay réagir ku lim dal jum kontaan naa bu baax baax de di remercier ñi nga xam ñom ñoo nekk bir elvision média ndax di bobu tay ñoo koy def mu nice muy mama jom pël bu rafet Bamba ñoom ñëpp daal Kaja ñoom ñëpp maa ngi leen di bu baax baax dinañ wax ñu jàpp rek te wa bàyyi leneen lii ñëw incha allah moom moo dàq. ku yàkkamti daal jaay sa ngor. di wax nit ñi nag nañu wax mama tamit mu may ma jàmm rek ndax sonal na ma torop. émission